jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen baaxoo ànd ak ñun tey nag ñu ngi ànd ak suñu beneen invité xam naa ne dañ koy bàyyi mu présenté wu ñu gën ko xam fii ci Touba mooy Serigne Cheikh Oumy dëkk fii ci dëkk bu sell bi nekk bokk ci seetu Serigne Fallou yi Serigne bi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi lay jaar. ñoo ngi nuyu mbooleem ñu ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di fay waa site bi di 24 actu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ak mboolem ñi ñuy ci réew mi ak bitim réew. sëñ bi ginnaaw bu ñu doon ñëw ci nuyoo bu am solo bu matal bi tey ñu doon def jàngat maanaam li nga xam moo di ci tolluwaay réew mi waaye nag xam naa ko màggal Tuubaa la ñu génn lan nga ñu mën a tegal ci taabal yi ci li nga xam moom mooy màggal nga xam ne gis na ko. waaw di sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba bi di wax ne suñu xalaat ci màggalu ren gi naa ne màggal gu jaar yoon la donte am na ay difficulté yu ndaw yoo xam ne ni mënta ñàkk ndax circonstance yi mu dajal la muy màggal gu nawet ak état buy doog a toog waaye loolu lépp yàlla def na sutura ba màggal yi koy jiitu yëpp mën nañ ne màggal gi moo leen moo moo leen gën a aw aw yoon ci fànn yu bari nag yoo xam ne ni buñ buñ duggee ci biir waxtaan bi danaa ko leeral yëpp di sant baax état Sénégal bi nga xam ne am nañ taxawaay bu mag bu rëy ci màggal gi def ci ay jéego yu am solo yoo xam ne nii maanaam ren lañ maanaam ñun ñi dëkk Touba xam nañ ne am na soppeeku yu ci am yoo xam ne nii ren ren ren la ci am rawatina wàllum sécurité bi ñu waa police euh, euh, ministre de l'intérieur kooku moom mention spéciale lañ ko war a defal ndax liggéey bu rëy bi mu def ci dëkk bi ndax dëkk bi wenn yoon képp la am woo xam ne nii ci la nit ñi duggee di jigéen ne waaye def nañ ci xam-xam boo xam ne nii. ba noppi te liggéey bi dafa yàgg maanaam ba màggal gi desee ay ay fukki fan ba tey ba fii may waxee yow ñu ngi ci rawatina police yi nga xam ne ñoo ne ci kaw tali bi tamit dañoo amaat dañoo mel ne yeneen police lañ am daal ñu am ak dal di masla ak nit ñi euh, xam ne ñoo nit ñi benn lañ loolu luñ mën a remarqué la ren. ren ne gis na jafe-jafe yi nga xam ne ni nga ko waxee ni ñu ngi koy dund ci ñaari ndox yi muy ndoxu taw bi ak ndox bu ñuy naan loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu jàngat bi ci am rek mooy. même euh, saafara yi ñuy wax ne moom lañ bëgg a def muy indi laat dëggee rek ah, indi ndoxam Tuubaa bëggam muñ ji mën a indi te nit ñi nga xam ne ñoo fi ne sensé wu ñu itam euh, indi gi du jariñ dara ndax nit ñi ci boppam ñoo war a xam ne lii maanaam ñaan nga la ko Sëñ Tuubaa ñaanoon dëkk bi suñ Tuubaa daa ñaan ni mu bëgg mu mel ko ñëpp ni ni mu bëgg yàlla melal ko ko yëpp ñaan na yàlla ñaan na ko yàlla loolu nag lii taw feex mooy fexe yàlla boole la ca ñaan nga bañ a saboote bañ yàq bañ a def dara ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne nii maam seen intérêt bopp dana tax bëgguñ dara maanaam dëgg bëgguñ lu baax maam duñ bëgg sax dara baax mooy waral ngay dégg ñu naan ñii dañoo tëj wan yaag ñii dañuy jaay ndox maag mal loolu nag changé na lu bari changé na ci ren ndax man gis naa ay oto yu ndox yoo xam ne nii euh, maanaam dañ leen a jox ordre mooy trois voyages yi ñu leen sant ordre leen ko duñ ci nangoo teg beneen te loolu dawut am man daanaa gis ay oto ndox yoo xam ne ni boo leen entrepreneur boo leen laajee dañ dañ lay jaay ndox loolu moom def nañ ci liggéey bu am solo ministre bi yor wàllum ndox mi def nañ ci ren liggéey bu am solo gis naa ay oto yoo xam ne nii maanaam nanguwuñu ko ñi yore forage yi tamit nanguwuñoo ubbi yenn forage yi am na ay jafe-jafe ndax màggal gi kenn mënu ko natt ba ba mën koo ba mën koo ba mën koo ba mën koo dajal ndox moomu ñuy wax nag état Sénégal na ci def ay jéego bu baax rawatina euh, wàllum assainissement bi Euh, ndax Touba dañ koo dañ koo liggéey lu yàgg mu doog am assainissement maanaam dëkk boo am na 100 ans doog am assainissement il faut problème am fa te assainissement bi itam ni ko doxalee maanaam dafa am erreur bu ci am muy lépp dafa jëm benn côté muy côté Kër Ñang bi te Touba maam ni mu bindoo dafa doon ñeenti xibla yoo xam ne ni côté bu ne bu doon côté bu ne sa assainissement sam ndox day génne sab koto maam man a indil benn côté bi problème booy xool côté bi ba Kër Ñang kir ngiraa neen toujours problème ndox ci côté boobu nga koy dégg loolu nag man jàpp naa li ko waral mooy li fi ndox mépp jëmandoo ndoxum Touba mépp ndax ay machine a koy doxal ak ay pompe bu ci taxawut wala bu taaluñu ko te lépp courant koy doxal loolu day def benn benn benn bousculant boo xam ne nii maanaam lu mu gàtt-gàtt rek day mën naa sonal ay nit kon ñoo ngi wax état bu wees bi nga xam dañoo ñëw te bëgg a liggéey ñu bàyyi xel ci loolu maanaam bu ñuy trancé plan assainissement Touba ñu ñu fexe coté yëpp mu génn fa ndax côté yëpp am na fu mu fu bu génnee am na fu mu dem am nay kàmbi suuf ñu bàyyi ci xel Mm. waaw taxawaay bu bi ñu am de ci màggal gi mooy eh, jëf ju rafet ji nga xam ne moom lañ doxaleeg mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoom dañ leen doon saboté seen diggan ñoom naan ñi ay salafiste lañu ak bu ñu toogee màggal du am ak gàmmu du fii ne nit ñi dañoo baax rek te bàyyi waar waar. te amuk taalibe waaye bu ñu doon waaram ñu bëri danañ am kerse ndax dañoo doon li ñu leen doon wax mooy ñii gëmuñ diine li bëri na jëf yu ñu jëf yoo xam ne fi ne kenn du ko xam ba ci jiw bii nga xam ne kilifa yi dañ ko daan jot fi mu ne ren jii lu ñu daan am dañ ko triplé ñoom ñëpp amul kenn ku ci am loo xam la ah, bi fi régime bi jàll am nga am nga ko am nga ñettam ndax xam nañ ne ñoom ñooy ay baykat ñoo koy kii ndax di gën nañ ci politiciens yi fi daan nekk ñuy wax ne jiw yi ñi ñu koy jox euh, duñ ay baykat ñuy tëdd ay kafe dorom ak ay nangam nangam te loolu lu logique ñoom nag bi ñëwee malgré ah, temps bi gàtt na mais fexe nañ ba ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ay baykat ñu ñu ñu def audit ñu ànd ak militaires yi fexe ba jiw yu dem ci liñ liñ leen jox musuñ leen ko jox yu baax yooyu nag la ñu war a wax te bàyyi yenn yi nga xam ne dañ koy génne léeg leen ngir bëgg a jabulisi ak jaxase ndax loolu amul benn njëriñ waaw taxawaay bu rafet rek boo xam ne nii am nañ ko ren ci màggal gi muy honorable du président Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñoo ngi koy nuyu bu baax euh, gone la waaye ne ma koy wax ne ko jëfi mag ngay jëf ndax euh, dëkk bi dafa am lu leen metti woon loo xam ne nii euh, yàgg na moom nag ba ñëwee loolu lu ci bëri yàlla def na ne dañ na muy muy muy muy muy yamale yamale yamale yamale sax xam naa mënta nekk mais mais mais bañ a tëju nit ñi loolu bokk na ci jikko ji ma neex bañ a sensé numéro téléphone am bañ a tëj bunt këram ndax nit ñi ñoo ko def li mu doon nit ñooñu nag bu fekkee da ngaa falu mënatuñ laa jot mënatuñ laa dégg boobaa loolu mooy indi yenn yenn yenn kii jàmbaar la nit ku baax la te itam ku am ak dogu la ku am engagement la ci lim nekk la ku am gëm-gëm la itam xanaa di ñaan ñi nga xam ne ñoo ko fi teg rek ñu jéem koo jàppale te xam ne Touba dëkk bu naqaree nekk la ndax dëkk boo xam ne nii dañ lay xeex ci saayir di la xeex ci ci baatin waaw xeex bi day bëri lool ci xeex fu ne lay jóge fu ne fu fu ne la xeex biy jóge moom nag loolu lépp yàgg na mu mu résister ko rek taxaw ba yàlla may ko may may defal ko lii ma ko defal waaye li ma ci gën a neex mooy defal gi ma ko defal taxul mu fàtte maanaam taxul mu mu mu mu ci moom dara te loolu rek mu am solo. mi président Bassirou Diomaye gis Mm-hmm. commencé ranceau ci ñenn ñi dem di seeti ba mm-hmm. mm-hmm. soxna am waaw euh, président ñëw fi ànd ak soxnaam dem seeti ay soxna de loolu dara nekku ci seeti gi ak maslaa gi loolu moom ak mbem ñiitu réew mi ak waa état bi loolu dara nekku ci waaye li ñuy bañ kay mooy mooy mooy yëf yi amoon amaat fi loolu moom ñëpp dañ ko ñëpp koy bañ mooy mooy mooy Touba boo gisee population Touba ñi fi dëkk taalibe yi ñu bëgg Sëñ Touba lañu maanaam kenn gënu gënu leen a gëm Sëñ Tuubaa te foo gis ñu fay opposé rek maanaam intérêt Tuubaa moo tax ñu fay oppo opposé wu. régime bii fi jàll ni ñu leen opposé woon ba ni ñu fi jógee tey Tuubaa am na ndam ci ci ci ci ci ci ñëpp ndax xam nañ ne eh, lii rek lañ bëggoon ndax tubaa li ñuy toppee nit du ay du ay loo leen defal wala loo leen def maanaam ñoom ni nga jàppee sëñ bi teñ eh, ak ak kilifa yi noonu lañ boo gisee ñi ñu àndal ñëpp ci noonu la ñuy ànd ñoom. xëy na nag am na ay réeroo gu ci am léeg-léeg ñu ne nit nii la jàppee sëñ bi te xamuñ nit kooka dëgg-dëgg ndax sëñ tubaa maanaam am na taalibe yoo xam ne ñoo gënal mooy ñi nga xam ne sëñ Muntaxaa rek seedeel na ko ñii fi nekk ne ñoom de li li lim lim gën a xam ci ñoom mooy nit yi diine lañ maam ñu ñor lañ maam nit ñi ñoo xam nit yi diine lañ te rek moo am solo kon régime bi bu ñëwaatee eh, ñi nga xam ne ñoo leen fal nekk ci dëkk bi maanaam am na loo xam ne ni mënut a damay wax ne ñu bari dañ naan Touba euh, diw daa bañ Sëñ Touba diw daa nangam ak dañoo bëgg Sëñ Touba kenn mënulu ko dara loolu moom gàtt xam-xam ak ñàkk gëm Sëñ Touba foofu la foofu la Touba bi ñoo ëppoon puissance ñëpp gën a bon ñëpp te bëgguñoon liggéey suñ bi agsi fii léegi nan la ñuy demee ba ba Sëñ Touba jógee fi 1927 ba tey ñu naan diw daa bañ Sëñ bu toogee kenn mënu ci dara ñii fi toog nii suñ bëggoon a gàllankoor dara ci liggéey Sëñ nit ñee leen njëkk a maanaam nit ñi la waaye nit ñi dañoo wax jàngat leen xam ne ñii ñu jub lañ ay nit yi dëgg lañ ñu tegu ci aw yoon lañ ñu ñu ñu topp leen léegi nag euh, li li ñu war a def rek mooy rafet ci rek ñëpp ndax ñoom mm, président Ousmane Sonko gis ngeen bi mu génnee ci kaso bi ni mu wax ne su euh, xelam dafa dem ci euh, yonent bi sulh Hudaybiya mooy jéggale ndax boobu mooy mooy wax nañ ne yonent bi bi mu jógee ci bi Hudaybiya jàllaa bi bi mu soloon sax daf ko wàcce nii ba mu muur ay bëtam ngir. bañ nee na koo xam ne ni aw dig doxoon na seen diggante moom muy jàkkaarloog moom daray daray euh, fayu di dem ci moom nga xam ne daa jéggal ñëpp suñ kii ñu yaakaar it suñ Tuubaa bi demee ba ñëw mënoon naa fayu lool ndax bàyyi na fi ñu ko gëm te bu leen joxoon digal ñu def ko waaye dana xafawtuhanil ahda turan li wàcce man ñii fi nekk nag loolu lañ gis ñu def ko ñi leen doon xeex démb ak di leen wax ju bon nag ñëpp tey mujj nañ rancé wu seen ginnaaw di leen waxal lu baax de Touba réccu ñu dara tu ñi leen faloon bu buñ élection amaatoon suba ñu fal leen waaw xanaa ñu bañ a ñu génn ci li ñu nekk rek dañoo xam ne ñetti weer lañ fi am ñoom wala ñeenti weer gën gaa bari te ñi ngi def ay jéego yoo xam ne nii maanaam maanaam ku bëgg a dem ci aw yoon rek te te xam lu baax da xam ne ñii fañ jëm dana baax diggante sol mbubb ak summi nag moom faaw ngelaw li ëpp la ngelaw li ëpp la nit ñi nag dañoo munta muñ dara waaye il faut ñu muñal leen bañ def fi ñaari at wala ñetti at ñu xool ba xam. fan yi moo mhm. bañ a fay. Mhm. yow mooy sa xalaat. bañ de mooy mooy mooy bañ bañ ba ba ba état bañ laa defal ndax état ci impôt lay dundee ndax euh, Senghor wax nañ ne am na dëkk bu mu ñëwoon fii ci wetu tey tey ba ceekeen gii rek. Euh, waa dëkk ba ne dañoo bëgg ay kilomètres raay mu ne mu ne ba mu jëlee kàddu dane leen lu ngeen bëgg ñun ñu ne ko raay ay raay lañ bëgg mu ne du ngeen ko am ñu ne ko lu tax du duñ ko am mu ne kilomètre xaay li ngeen war li ngeen war a def pour am ko war ngeen a fay impo lu tolloog juróom fukki at te loolu du ma fekkaat ci résime bi kon loolu day tegtale ne impôt ci la état di sukkandiku ba mën a def li muy def kon nit ñi li ñu war a def mooy bu ñu bëggee ñu defal leen ñoom it dañuy def ndax état du dara lu ñu organiser la rek yoo xam nit ñee boole seeni doole jox leen ko ñu war cee defal nit ñi état li mu war a def Touba maanaam obligatoire la ndax Touba bi Euh, recensement yi ñu mujj def ci année euh, yi ñu mujj def ANSD dañoo wax ne population bi ëpp ci ci ci Sénégal fi ñu dëkkee mooy fii mooy mooy département Mbacké te département bi bu ñu koy wax tuubaa tax li ëpp Touba la dëkk ñooñu nag dañoo am àq ci réew mi ñoom mi nag euh, nit nag daf àq ji mu am da daa war a def ay devoir am do doog laaj ay àqam devoir mooy yooyu nga wax fay lempo ak loo war a fay nga fay ko rek. def def li président yi digle rek mooy jub ak jubal ak jubbanti ndax loolu lépp ci ci ci ci la ci la ci ci la li ñu bëgg man a amee. coow leetar bi am am dañ ko war a déposé ko déposé jóge na ci kilifa gi jógewu fii bon waaw coow li coowul leetar bi de man dafa xaw a ub sama bopp te ub na ci bopp ñu bari nag ñu bari amuñ ci lu leen leer ba tey fi mu ne nii donte ay wax yu bari ay kàddu génn na ci yoo xam ne nii waroon na waaye jàppoon naa ne jëru ko ndax euh, maanaam bu dee kenn mënta siise ne lii moo tax mu am mais da jàpp naa ne jëru ko woon ndax ñi koy wax ñépp euh, dégg naa ñenn ñu naan dañoo bañal suñ waa état bi li ñu def ci màggal gi li ñu subventionné ci hôpital yi boo ko gisee 800 millions kii waxal sëñ bi moo ko wax. 800 millions nee na état mosu koo def Sénégal 800 millions xam moo te lettre bi dañoo wax ne li ñu daan fay ñoom du mat wax ba mat 10 millions te loolu jàpp naa ne du du kii du du kii te itam boo gisee ñu ñu ñu ñu def CLD ak CDD ak CRD ci màggal yi mooy dañuy dañuy wax li ñu soxla màggal gu ne da ngay wax li nga soxla loolu la CRD ak CLD. ak CDD di jëriñ CLD mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy arrondissement mooy waaw préfet sous préfet bu dee CDD mooy département lay signifier mooy mooy mooy mooy mooy préfet moo nekk Mbàkke bu dee CRD mooy régional bi moo nekk Jurbel yooyu yëpp ñoo fi teewal état kenn ku ne da nga da ñi nga xam ne ñoo organiser màggal danañ daje ak ñoom wax liñ soxla ci màggal gi tënk ko service yi mu concerné yëpp kenn ku ne jël engagement ne dinaa ko def kon lettre bi jàpp na ne bu doon aw foofu la war a aw bu doon loo xam ne nii luñ lu jëm ci màggal te sëñ bee ko soxla fu ci CL CRD bi la aw bu demee dana jàll ba ci kilifa ya ndax yi ci aw yëpp jàll na te wax nañ ne am nañ ci satisfaction 96 pour cent wala 97 pour cent ci liñ demande woon donte xat na. yow jàpp nga euh, a jóge ci li nga xam ne comité d'organisation bi nga xam ne organisation. waaw loolu la sëñ Bass Abdou Khadir wax ne moom jógewut ci moom ndax luy jóge ci moom dana ko bind signé ko loolu la wax loolu la wax moom moom génnee sorti bi ngeen loolu la wax. lu bu doon génn man maa ngi bind signé ko état wax wax moom wax na kon wax na lim lim lim lim li mu bëgg a wax te commission bu ne ni muy deme jàpp naa ne bu dee commission bu tegu ci aw yoon la maanaam commission yëpp luñ soxla dana jaar ci ki nga xam ne mooy président bi mu signé ko signature te man nekkuma fi di layal kenn wala may may faral kenn waaye yi ci am moom ma metti mooy wax jiñ ci xam ne nit ñi dégg nañ ko te metti na leen muy nuru mal ne ay xeebanteeg yooyu te yooyu maanaam fa kullu man yenn yansuruhu fawqal kilaab fal kalbu xayruhu doona lirtiyaab eh, waxuma la nit sax waaye eh, mala sax kenn du ko xeeb loolu la Sëñ Tuubaa wax nee na boo gisee ab xaj nii ba gis ne jàpp na yaa gën xaj bi booba xaj ba moo la gën rawatina ñun ñëpp nga xam ne moo ñu bokk ku wax muy Cheikh Ahmadul Fadal di ku baax koo xam ne nii jikkoom ci la ko nit ñëpp topp ak woyefam ak ak ak ak ak ku mu gis rek def na la boppam mm, def na la boppam Euh, te it ñu bëri dañuy bëri loo xam dañ koy jaawale mooy diggante jaayante ak ak ak ak ak kii ndax jaayanteeg nit du dara lu dul euh, Sëñ Tuubaa moo moo ko fi indi jaayanteeg nit muy topp mooy mooy ku la mën a yéege dem ci yàlla koo xam ne nii euh, dalay dalay sa ruu lay yéege dem ci yàlla looloo taxoon ñuy topp nit ñi waaye du topp toppin koo xam ne nii dañ topp ki dañ lay moom wala nangam nangam nangam. to maam pas-pas moo taxoon ñuy topp suñ Tuubaa daal pas-pas ak ak koo xam ne dalay manal dalay mënal dara waaye nag bu demee ba ba wax ji di jur ay yeneen fii ne internet bi boo koy xool gone yi lu ne ñu ngi ko ciy wax te daanaka jëru ko woon loolu jëru ko loolu lettre bi amul solo maam solo si bëriwul euh, te li leen boole nii ay politique ak yooyu yëpp day jaax li li leen boole mooy suñ Tuubaa moo ëpp doole boo gisee ku mel ne sëñ Fàllu Mbàkke moom sëñ Alaaj Baara nit ku baax la ku nite la tamit ndax euh, biñ ko fi jiitalee fii moo Seex Corom yi Eh, ànd nañ xëccoo ba yàlla xii bu mu ñëwee màggal ga dafa ñëw këram siyaar si ñoom ñaar ñu nuyoo lo xam ne li bokk moo ëpp loolu moo ëpp moo ëpp moo ëpp nekk fii ci internet bi kii naan di wax di ak kii di wax laa loolu daal jàpp naa ne man jëf ji xaw naa gàtt lool te suufe na itam. ndax euh, euh, tamit am na ñoo xam ne nii ñi ngi ci naan diw daa bañ Sëñ Tuubaa diw di di ci indi yeneen wax te jamono ji li ñu war a tal mooy wàññi wax je xuloo beeg ak wutal gi ñu wutal noonu diw daa bañ Sëñ Tuubaa Sëñ mhm. xam nga nit dañ naan diw daa Sëñ Fàllu woon dañ doon wax bañ Sëñ danaan bañu ko da koo xamut maa da koo xamut da ngeen di fexe ba mu xam ko rek te it bëri na ñoo xam ne dañuy contour di wax wax yoo xam ne nii ñoom la engagé ndax mbirum suñu Tuubaa moom kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara mi ngi mel ne jant bi so rek nga taxaw fee xaj ba taxaw fee di ko di di di di di ko di ko mënut ci jant du tee jant bi fenk daal du tee jant bi waaye wa waxi leetar boobu moo jërutoon muy génn ba kii naan te itam nit ñi ba la ñu dañoo war a gis ñaari sens yëpp ñaari leetar yëpp ñu xool leetar bi lu ñu ci bind ak nangam nangam nangam bu awoon fii daal yaakaar naa coow lépp du ci am. mais waaw loolu lépp li ko indi mooy alfitnatu naima laxnahu laxnahullah man laxnahullah man ay xasoo yàlla dafa wax yonent bi dafa wax ne fitna ma ngay nelaw yàlla rëbb na ko koy yee te yu mel nii rek doo xam koo génne lu mu jublu ci mu génne ko dafa bëgg jabulise état bu bees bii ak yoonu mu murit te état bi moom bu dee wàllum jabulise moom yaakaar naa ku koy jéem a def dañ la ciy xamee rek ndax du dem ndax ku ñoo xam ne nii lu ne waxal nañ leen ko bañ xëy doon liñ doon te kenn joxu leen ko ku du nit ñi loolu moom boo cee wax yow yow lañ ciy xamee wala ñu xamee ci yow loo xam ne nii mënoo na ko bañ a xam lool lay jur loolu lay jur waaye mbirum Cheikh Omar Diagne it man man Cheikh a Diagne yitteelu ma maam yitteelu ma xam ma ko xam ma mais damaa gis ne nit ñi tamit dafa am fu ñuy làqatu léeg-léeg dañ naan diw sàngam daa bañ Sëñ Tuubaa da ngay jékki-jékki diw daa bañ Sëñ Tuubaa di xeexal Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa mi ngi xeexal moom ñi ko yóbboon a gën a bañ te bi mu ñëwee dana xafawtoo xam ni xam ni la daa turan li ci man te maanaam Sëñ Tuubaa layal ko du ay wax maam du nekk di siñ daanoo lu nekk di ko wax Sëñ amul loolu lépp xam nañ ko amul moroom ndax dem na si mais ci sa jikko ak sa jëflanteeg ñi ngay jëflanteel ki koo jëflanteel mu bañ a jaare ci yow yàpp Sëñ Tuubaa ak yow ci sa bopp lan nga defal Sëñ Tuubaa loo xam ne mënees na cee teg baaraam loolu loolu mooy mooy mooy mooy laaj bi loolu mooy laaj bi waaye am na ci yoo xam ne nii daal moom moom moom jàpp naa ne jamono ji laaju ko ne fii naan wax nañ yoonu murid lii rek yoonu murid ba mu juddoo ba tey ci wax lañ ko ci wax lañ ko xamee am na ñoo xam ne tàkku tàkkul mboob la du yàgg yaakaar naa mi ngi bëgg yàgg kon ñii wax moom mënuñoo tere ñu wax ndax yàlla sax dañ koy wax dara yàlla mi ñu sàkk moom ñu da ngay gis am ñu ko gëmut yonent bi am na ñu ko gëmut léegi nag Sëriñ Tuubaa lu yàlla amul yonent bi amul man na ko am loolu jur dafa am ñoo xam ne dañuy làqatu ci ginnaaw loolu maanaam di wane ne fii lañ féete wala nangam nangam nangam waaye affaire jabulise ak yoon wi daal moom ku ko bëgg moom bay boo nga état bi nag maa ngi leen di wax ñu gën a góorgóorlu ci Touba ndax Touba ñi fi dëkk Euh, ay gone lañ bëri nañ ñoo xam ne ni amuñu euh, am xëy daanaka quatre-vingt-dix-huit pour cent yi amuñ lu ñuy def mel ni métier moo fi am muy dawali sareet te loolu image Touba war na ko weesu di ci interpeller ministre transport euh, El Malick Ndiaye maam ñu xool Touba indi fi beneen façon transport boo xam ne dana wuuteeg sareet yi ñu tàggat ñi ciy liggéey jox leen ko donte dañ leen koy lebal wala ñu am lu ñu joxe ñuy ñuy daw di di fay ndax lu bari wax nañ ne mën na ñaar fukki junniy sareet ak lu topp loolu euh, ñu bari ñoo ci ñoo ñoo ci yor seen kër ay emploi ci xëy doo kenn mun a xëy xëy jëlee ko fi noonu mais da leen wutal lu koy remplace loo xam ne nii mooy remplace sareet yi ndax image Touba war naa weesu ay sareet ak nangam nangam war nañ fee def tëli yi am ndakaaru am ay pont am lépp nit ñi bu ñu ñëwee mën a dem taxawal fii tamit ay son industrie yoo xam ne gone yi dañ ciy liggéey loolu la waa Touba gii leen fal di xaar ci ñoom su loolu la ñuy xaar ci ñoom ndaw yi am yi liggéey ndax Touba amul lenn lu dul marché commerce dong la benn place la muy commerce gone yëpp ci lañ li ñuy dund mooy barkeeb sëñ bi ak baatinub sëñ bi ñu fiy dund ñëpp loolu na kon état buñ lii leen waa Touba def ñoom it war nañ leen a jéem a jàppoo ak ñoom buñ ko defee rek liñ bëgg lépp danañ ko ndax Touba dafa am lu lu fi xew loo xam ne ni ñoom muy état bi régime bi jàll biñu demee ba xam ne mënuñu am Touba dafa am benn système bu ñu def mooy dañoo dañu dañoo ku fi am dante rek ñetti at yi wala ñeenti at yi dañuy bind sa dante non votant nga xam ne bëri na masse bu nekk Touba boo xam ne lu toll ne li fi wate loo xam wate mënuñoo wate loolu ab xeex la loolu dañuy fexe ñoom ba dindi ko gone yëpp mën a wate ñu defal leen lii ñu bëgg ndax seen àq la ci réew mi te yaloon nañ ko donte wate luñ leen maanaam loolu état da ko warloo ak ñoom mu defal leen ko bu ko defee rek ak transfert de électeurs yi nga xam ne am na benn ministre de l'intérieur boo xam da koo nekkoon loolu lépp ci xeetu saboté dëkk bi la ñoo ñu dëkk Touba ay Linguère la ñuy watee fu ne la ñuy watee loolu bu ko état bi jëlee defar ko Mm, jàppal leen Sëñ Tuubaa mi ak seen kilifa yi euh, fexe ba ndaw yi fi nekk am am xëy euh, mën nañ fee toog mm, maanaam 40 <laughs> mhm. mm, loolu de jikko yu yàq yi moo ko waral jikko yu yàq yi ndax ab jul boo xoolee souvent rey yi am yëpp. li ko waral mooy maanaam xaalis day mooy mooy mooy mooy wàllum xaalis lañ ciy wax rek boo demee enquêtes yi bu génnee maanaam nit ñi gëm nañ xaalis gëm intérêt gëm goo xam ne nii maanaam loolu rek mooy tax ñu koy def te loolu jikko yi ak yar bi moom moom moom la ñu war a delluwaat mooy éducation de base bi fexe ba nit ñi jàng xam ndax yàlla teyit it peine de mort mënees na ko indiwaat ndax yàlla moo ñu gën a maandu ñëpp gën a am yërmande ci ñëpp waaye boo gisee mu ne ku rey nañ la rey ku jam nit nañ natt lu toll ne li nga ko jam ñu jam la lu toll noonu ci paaka bi ku sàcc nañ dagg sa loxo moo ëpp ñëpp yërmande day bëgg rek teg daan yoo xam ne ni kenn du ko ñemee defeti bu dee bu fekkee nit day rey nit du mat ay ñetti wala ñeenti at génnaat di dox boobaa rey mi day gën a bëri rey mi day bëri te ñu gën a fonk yar bi dugal ko ci école yi nga xam ne comme ñi fi nekk dañ dañuy sensé jikko yeeg système bi ñu xa ñu fexe ba jikko yi lu jafe la nag jikko yi nga xam ne moom lañ moom la nit ñi amee muy muy muy muy muy muy muy xeebaati gi muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy jiital alal gi muy muy yàpp koo wërta yàpp fontoo ko xam du sa morom ak ak waxante lu ñaaw li loolu lépp ñu bàyyi ko ndax régime bii fi nekkoon maanaam booy xool loolu dafa installé woon maanaam dafa demoon ba maanaam dañoo maam nit ku wax rek kenn demoon na ba kenn ñi mu wax ku wax rek am na ñuy génn di la attaqué ngir waxal la lu ñaaw wala nangam nangam am ñoo xam sax waxal lu ñaaw moom lañ def métier ngir dem ci média yooyu yooyu yëpp nag régime bi dañoo war a xeex ba ba ba loolu du am ndax loolu mooy base fondamentaux yi nga xam ne maanaam luy am rek ci loolu lay amee wax ju ñaaw ji nit ñi balaamee wax ju ñaaw ak def lu ñaaw ci ci ci ci ci ci tasukaayu xibaar yi loolu nit ñi dañuy dem ba def jàpp ne lii bu ñu ko defee dara du leen ci fekk loolu nag am nañ ci ab liggéey bu rëy ci wàllum internet beeg mboolem tasukaayu xibaar yi ak sensibiliser ndaw ñi delloo leen ci diine ndax euh, diine moom bu xasee jóg ci nit rek dara desatu fa. Hmm. waaw 90 pour moom moom ñoom ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi ñoo ko waxal seen bopp ñi sëñ bi joxoon ndigal ñu ñu jiite ko ndax wàllum comité nii bi mu bi mu xewee ak léegi signalaaj baara ko fi teg loolu signalaaj baara moo indi. comité loolu yaatal la ci jublu woon ndax màggal Tuubaa bu am kii fi boobu waa Sëriñ Tuubaa rek ñoo fi nekk ñoom ñooy xool ku leen ñi ñi ñi wóolu rek ñu dox loolu leen li ñuy dox lépp bi Sëriñ Baara ñëwee nag nekk sët bi nga xam ne moo njëkk a wutu maamam yaatalam gu ak xolam bu yaatu tax mu ne ñi ko moomoon dem nañ ñi ko bokk fi kon léegi dañ koy waxtaanee ci la yëpp am comité yi ngay dégg ak yëpp ci la ci la ci la taxaw ñu di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram bu baax ndax borom xol bu yaatu la woon te te xamoon àdduna itam ni muy doxee ñoo ngi ñaan yàlla euh, wa yokk yokk yokk ay leeram ca barsax Muhammadiya wanale ko baayam ba xam naa wanale na ko sax waaye mu dëkk ak moom ba faaw rek ndax moom ay mbiram ak moom dañoo doon benn ba boo gisee ni mu fi jógee sax lépp bennam lañu di ñaan ab xalifaam Sëñ Moustapha Alaaji Baara yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ku diñ la ku am personnalité ku xam boppam la moom waaw waaw ñoo ku xam boppam la ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko te sàmm ko ak mbooleem njabootu sëñ Baara Fàllu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Serigne Cheikh waxtaan bi xam naa am na solo am am amati na solo waaye ñu ngi jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabi ci geneen gan jërë ngeen jëf.